boo gisee image yi liñ sa xel du dem ne lii mën naa doon ab lekkool wante de moom la lii mooy environnement bu lycée Jaxaay nekk ci Kër Massar ci banlieue bu Dakar. bile l'école nag daanaka bu fi dugg si ay ñax ñoom ñoo lay gàttandu. dalal la ak ay ndoxu taw yu des file yoo xam ne tey jii mat na ñaari weer ba asamaan si sebete ba tey lii di jafe-jafe bu metti boo xam ne lekkool bi dund na ko ñaari at yu ñu wees ren jile naka noonu li am ay njeexital yu am solo ci njàng bi ndaxte yéex nañu tàmbale lool l'école bile xamul ubbi tey jàng tey ndax ibbi sax defuñu ko laata ñuy jàng fii nag quand même dëgg-dëgg jonkonte woon dañ fi ak jafe-jafe yi yoo xam ne kenn mënu ko bañ loo xam ne pendant ñaari at ndox mi dafa nekkoon ci digg lycée bi ñu jaaxle lool. mu am fi ay grève yu bari yoo xam ne loolu moo ko waral. benn pàcc bu lekkool bi ndox yi nangu na ko kenn mënu ko jëfandikoo comme image yi ni mu koy wone perron bi moom mooy kott yoon bi nga xamante ni moo la mën a yóbbu ca classe ya jàngalekat yi ak ñi nekk ci administration yi. noppi la ñuy mbëkkante ñoom ñëpp muy environnement bu méngoowul ak li ñu war a gis ci l'école waaye ñàkkul ay njeexital. des fois pour nga romb sax problème la parce que euh, cour bi inondé na xale yi amuñu fu ñu jaar amuñu fu ñu taxaw donc on est ñii kiiw ak ñoom ci couloir yi. heureusement am nañu benn couloir boo xam ne ci la ñuy jaar donc foofu la ñuy mbëkkante ak élèves yi. waaw éducation ak euh, ak ak inondation bi àndul alerte nañu def nañ lu ñu mën mais autorités yi dañu répondre tardivement. ce qui fait que dañu démarrer sax cours yi tardivement. même ñun la personnel on a énormément de problèmes. conditions yi moo metti conditions yi metti na lool lool lool te depuis daaw ëpp na daaw ba ren ñu ngi wax partout. pour ñu am xel mu sell il faut que fi ñuy nekk tamit daal di sell. waaw xel mu sell day nekk ci euh, maanaam ci endroit bu sell fii ni boobu ñëw di nga gis ne endroit bi sellul. environnement bi moom ce n'est pas sain parce que vraiment lii moom ku ñëw ci lycée bi sa xam na ne euh, c'est ay effort rek lañuy def pour mun fi toog def suñu liggéey correctement. bërëb bile méngoowul ak condition yi nit war a jànge ci xel mu dal. muy ci biti wala ci biir classe yi naam ndox mi yeggul ci biir classe yi waaye ci classe yi dekk ci suuf léeg-léeg sax nga gis ci tooy tooyu suuf si loole di firndeel ndox ju bari bi nga xamante ne moo nekk ci napp bi waaye li wóor ba wóor mooy loole amul benn njeexital ci jàng bi ndax cours yi ñu ngi koy amal ci anam yu mucc ayib comme ni ngeen koy gisee ci bile salle zogon L ñu fekk fi monsieur Diouf ci kanamu ay élèves mu leen di jàngal littérature française

jafe-jafe yi métti nañu. depuis trois ans aussi ñu ngi vivre inondation malgré tout ñu ngi def suñu liggéey. di aussi euh, que qu'un jour vraiment situation bi mën a changé ñuy def suñu liggéey mais dafa métti aussi ñuy liggéeyee nii. professeurs yi c'est des gens dévoués yu fi nekk personnel bi. ñëppay liggéey correctement mais daal conditions yi. moo métti. cours yi ñu ngi dem normalement ñu ngi def tout ba nga xamante ni élèves yi suñu élèves yi ñu ngi leen di teg dans de très bonnes conditions de travail profit déggoon nañu ak élèves yi déggoo nañ ak administration bi donc lépp a ngi dem normalement. sunu devoir moom mooy tant que ñuy gis ndongo yi rek dañ leen war a jàngal même su fekkoon ci biir ndox mi tamit dañ koy def waaw parce que loolu moom mooy sunu devoir. métit bi tamit bàyyiwul benn yoon élèves yi. waaye niñ koy faral di waxe ku amul li la gënal jàpp ci li fi ne waral nag ñoom ñu jàpp ci condition yi fi nekk jàng ñëw taataan si xam-xam. situation école moom comme ko gisee nii rek yéeme na lool maa ngi dund ak métit lu quoi. mais sant yàlla rek na un jour dina dina mës a saafara incha allah. ah école bàyyi nii ñooy góorgóorlu def liñ mën daal l' ñoo ngi jàng daal mais situation école bi moom bizarre na trop ñu ko defaral loon daal ñu jël. woote bi jib na ngir ñu daal di ñëw wàllu si leen. administration dalal seen xel teg ko ci liggéey yi nga xamante ni jot nañ ko tàmbali lépp ngir dox ji ñu daal di koy génnee ci bile lekkool léegi daal ma dikk monsieur le médic ma dikke boobu ma lay wax moo ñu indi ñii l'entreprise la bi fi nekk di liggéey. ñi ngi def ay travaux ñi ngi xaar nee na ils vont livrer dinañu ko livrer au mois de décembre. ñu ngi xaar. liggéey yu am solo yu tax yaakaar daal di juddu ndaxte boo ko seetloo daanaka. benn pàcc bu lekkool bi ndox bi tàmbali na faa génn projet bu am solo ngir nag ñu mën a xam lan mooy liggéey bi dëggantaan wala sax ban njëriñ la mën a am ci lan la mën a tax ba lekkool bi la daal di tàggatoo ak lu jëm ci inondation maanaam mbënn ndox yi mën fee jóge ñu sol suñu dàll dem ci direction bi yor wàllum xeex ak saytu lu lépp lu jëm ci wàllum mbënn bi ngir tase ak responsable bi yor li la liggéey directeur Madické Cissé daal di ñu xamal liggéey bi njëriñ bi mu nar a am ci biir l'école ak naka la demee. de mu commencé il a mis un dafa def lu ñuy wax euh, rabattement de nappe nga xam ne dangay ngay wàññi ndox mi ci biir suuf si di ko pomper muy dem ci loolu bi mu ko defee déjà gis nañu genn wàllu école bi yëpp déjà wow na ba élèves yi mën fa dox dem et ngi continuer liggéey bi bu ko yàlla dimbalee. Euh, contrat bi si ñeenti weer la mais yàlla mën nañu defal sutura euh, euh, duñ fa sax àgg et li ci des bareetul ndax entreprise bi dafa ubbi benn atelier ci base de chantier nga xam ne foofu la ñuy defaree regard yi regard yooyu nag moom la ñuy moom la ñuy posé ci point bas yi nekk ci école bi am na au moins cinq ou six points yi nga xam ne ay point yu baax foofu nag la ñuy def ay ay regard boole ko ak ay collecteur maanaam ay tuyaux yi nga xam ne dañ koy bëtt day am ay bëtt bëtt pour que mu mën di absorber nappe bi su ko defee tuyau yooyu yëpp day indi ndox mi ci bâche de pompage bi et à partir de la bâche de pompage station bi bu bu àggee benn niveau rek station bi dafay déclencher mu daal di dem donc ndox mi duutu fa dajaloo ba di indi inondation liggéey bi ci ci gàttal noonu lay demee maanaam lépp lu nga xam ne commencé na dugg ci lycée bi rek dañ koy dajale yóbbu ko ci bâche de pompage bi pomper ko mu dem géej. ci l'école bi professeur yi élèves yi ba sax ci administration bi ñëpp di dunde yaakaar di xaar. impact bi nga xamante ni liggéey yile dina ko am ci biir l'école. fi ñu toll nii mooy ñu ngi wax alhamdulilah ndaxte bi ñuy commencé année bi année scolaire bi xawoon na métti ba nga xamante ni ñëpp jaaxle nañ élèves yi ñëw nañ jaaxle parents yi jaaxle ñun administration bi jaaxle woon nañ de même que professeurs yi ak surveillants yi ñun ñëpp jaaxle woon nañ mais sant yàlla ba nga xamante ni lépp ci diisoo ci waxtaan ci déggante euh, bi ñu waxtaanee ak autorités yi. vraiment seen réponse positive na ba nga xamante ni direction des inondations vraiment ñoom ñëw nañu taxawuñu projet bi niñ ko gisee vraiment ñoom ñi ngi ci et projet bi mi ngi avancé ñu yaakaar rek incha allah que ni affaire yi dina dina baax bu neexee yàlla. mais gënoon a mais là vraiment cette année là vraiment am nañu chance dëgg-dëgg avec les partenaires avec l' état le ministère avec tout le monde nous apporter une solution boo xamante ni yéen koy gis si gannaaw nii y a une société qui est en train e travailler et nous espérons que la fin du mois de de décembre tout va rentrer dans l'ordre et que le décor dina gën a rafet dina gën a ñoŋ dina gën a ànd ak vraiment méngoog école bi ñu nekk comme que ñoom ñi ngi commencé di def dara. ñun aussi dañuy optimiste rek am yaakaar ni dina dina changer moom moo tax aussi ñu commencé cours yi parce que mënuñu aussi daal di taar tardeel cours yi daal di na set tey tey te loolu ñun it xam nañu mënul nekk donc comme tra liggéey yi ngi fi ñoom ñi ngi ci ah dañuy xaar rek liggéey pare ba xam nu muy demee. ñoom nee nañu bu ñu paree liggéey bi incha allah saa bu tawatee lycée Jaxaay kenn du fi gisati ndox. waaye nag euh, yaakaar daal juddu na fi. ku nit ñi seen xel dal na yaakaar juddu na fi. di wax na daal maanaam élèves yi mérité wuñ lii nañu ñëpp jàppale ngir comme niñ koy waxee ci français lii nekk léegi de mauvais souvenirs. lekkool bi jafe-jafe yi muy jànkonteel weesu na sax lu jëm ci wàllu mbënn bi ak ndox yi fi nekk. problème de toilette xam nga toilette jigéen dafa war a nekk ci toilette yu décente ndax day soxla boppam jigéen a góor duñu benn donc déjà ça c'est un problème ensuite. xale yi dañuy daanu crise fi xale jigéen ñi démb rek yaa nawe démb démb parfois ñu daanu ba nekk 5 ba 6 xale yi jigéen dañ leen di obligé yóbbu fële ci administration bi tëral leen foofu woo seen ay parents parce que amuñu infirmerie amuñu infirmier bu leen toppatoo et ça aussi c'est un problème amuñu cours bu ñu nekk amuñu salle d'étude bu ñu nekk toute la cour est inondée. tax lycée bi sax am na lu bëri lu mu war a am amul cantine scolaire. amul assistance sociale infirmerie amu ko donc ndox mi ñëw nag yokk suñu jàngoon. jafe-jafe yi bëri nañu naam waaye amul benn njeexital ci résultat yi ñuy am. lycée la boo xam ne dëgg-dëgg yàgg na ci bon résultat daaw rek ci mujj parce que daaw def nañ progrès cinq points sept points encore. parce que suñu élèves yi ak parents yi dañu xam ne ñun benn yoon rek lañ am pour génn ci ndax gox bi ngeen ñëw bokk na ci gox. bu gën a jog jànkoonteeg ay jafante jafe-jafe ci Dakar jaxaay sax nit ñi dañuy wax ne gox buñ fàtte la dëgg-dëgg amul dara loolu moom dañ ko reconnaître benn lycée fi nekk muy jaxaay amul institut de formation amul lycée technique léegi nag xale yi dañoo xam ne ñoom dañu niru ñu daanu ci benn kàmb benn pax xale yi chaque fois dañuy wax ne fii benn solution rek la am pour génn fii mooy jàng am bac dem sa yoon. dëgg lycée bi jar na jàppale lycée bi bu ko kenn fàtte. na ñëpp taxaw ñu doxandoo ak waa lycée bi ànd ak ñoom gunge leen ngir jànkonte yi vraiment jóge fi ba fa ñi ngi def de bons résultat au bac chaque année dañuy am résultats yu baax. lycée bu Jaxaay bokk na ci yi gën a yàgg ci département bu Kër Massar nekk école d'excellence boo xam ne ay génération yu bëri jaar nañu fi ñëpp fii la ñu tàggatoo tey ji mu am lu ëpp ñaari junni ay élèves yu bindu. naam jafe-jafe yi bëri nañu lool ci lekkool bi terewul ñu taxawal seeni challenge bokk ci lekkool yi gën a xarañ ci biir réew bu Sénégal